بالباب والنون ما شاء santaat sëñ Tuubaa bu baax baax bi mu ñu defalee tawféex ñu amaat jataay bii ak sunu sang yu tedd yii ci ndigalu sëriñ Cheikh moom sëriñ Saaliw ci kilifteefu Cheikh Seydil Muxtaar mi nekk ci bopp yoonu murit yëpp sëriñ bi ñu ngi leen di sant bu baax ci turu sunu jëwriñ ji sëñ Saaliwu gis ganeexoon lool saa su nekk ma ni bi mu koy dogal këram jii ci yoonu njurul booba moom xamul woon ni dana doon jëw li ñu kom waaye Serigne Saliou xamoon na ni dana doon jëw li ñu xelkom. danoo jaayante woon ak Serigne Saliou. ay mag lañu nag. ay mag lañu nag. man sama waajur man la yónni woon ma jaayante nee na waajuram sëñ Moustapha Lakram sëñ Moustapha mu sëñ Afia sëñ sëñ sëñ Abdou Lakram di waajuram moom sëñ Moustapha mii moom la yónni woon ci sëñ Saliou mu jaayanteel ko. ginnaaw sëñ Abdou Khadir. nee na gannaaw bi fi sëñ Abdou Khadir làqoo 1990. ne ma nekkul. ne daa ni ko boo demee neel sëñ Saliou 95 95 sëñ Abdou Lakram dem sëñ Abdou Lakram waajuram wu tedd wa jóge fi ñëw ci moom nee mu ñëw ci sëñ Saliou may ba muy dem bu njëkk yàlla dafa dogal mu taxaar yàlla dafa dogal bu fekk sëñ Moustapha toog ba ko waajuram woo nii mu def nekk. ne ma daal di ne ko. boo demee boo demee. nga jox ko sëñ Saliou. nga jox ko sëñ Saliou. ni ko jox naa ko njabootu sëñ Afe gépp. ni ko jox naa ko njabootu sëñ Afe gépp. te booba forog laa yor. nee na te booba forog la sol. ah te faaw mu sol. nee na te faaw mu solu. ah xam naa damaa fas kaala gi rek. nee na xam naa damaa gi rek. solu solu. dikkaat ba ci dikkaat ba ci ba ci bi. ma wax nee na daal di koy wax sëñ Saliou. mu nangul ma ko lool. ma jébbalul waa kër gépp. nee na mu jébbalul waa kër gépp ñu dem ba quatre vingt na ñu dem ba quatre-vingt-quinze mu ñëwaat. bii yoon moom maa woo sëñ bi. nee na bii yoon. sëñ Mountakha ma féete woon lee seede woon le ah. sëñ Moustapha nee na moo ko woo mu ñëw seede waat. lenn ci kilifa nee ak lenn ci kilifa yoonu mu di. Alaaji Modou Mamoun Niang. Alaaji Modou Mamoun Niang. sëñ Mamour Pakala. ak ñu demee noonu. ak ñu demee noonu. ñëw daal di melal kaala gi. nee na boobu sëñ Moustapha ni ko sëñ bi boobu bi ñëw ak kaale gi booba dan maa yónni woon dan ma ni bu ma ñëwee ña la ne ko tey maa ne tey nag man maa ne la jox naa la sama bopp àdduna ak alaaxira jox naa la sama bopp àdduna ak alaaxira loo ma digal ma def ko loo ma digal ma def ko loo ma tere loo ma tere ma ba ko baragal naa ne baragal ni léegi nii léegi nii rek Moussa Ñang léegi la ko jógee Moussa Ñang léegi la ko jógee li ko gënoon a ñor ci am na lu ko gënoon a ñor am na lu ko gënoon a ñor la ko mujj liggéey sëñ Saliou li ko gënoon a ñor sëñ Moustapha mii la ko. am na ci lu ko gënoon a ñor am na ci lu ko gënoon a ñor. moom mii la ko liggéeyloo. ba làq na ngërëm ba làq na ngërëmu sëñ Saliou. ngërëm loolee nag nee na ngërëm loolu dem gannaaw. nee na du ko bàyyi mukk muy dem gannaaw. loolu la ànd ak. nee na loolu la ànd ak sëñ Cheikh mu sëñ Saliou. ànd ak sëñ na loolu la ànd ak sëñ Saliou. bi sëñ Saliou demee. bi sëñ Saliou demee. sëñ Cheikh mii. sëñ Cheikh mii. woonu. woonu. ñu ànd ci liggéey bi. ñu ànd ci liggéey bi. ku ne xam na ni. ku nekk xam na ni jamono yooyu jamono yooyu maa ngi ci wetam moom mi ngi ci wetam léeg-léeg maa ko yiwil gan yi nee na léeg-léeg moom mooy yéewil gan yi yi ñëwoon di jaali sëñ Saliou léeg lu ne laa ci dégg nee na léeg-léeg lu nekk la ci dégg ma ne leen kii nee na mu ne leen kii bàyyam moo doon bàyyam sama bàyyi bàyyi may sama sëriñ bàyyi may sama sëriñ moo mag moo ma mag nu ko bëggee rek laa koy def nu moo ma woo boobu yi te moo ma woo boobu yi ma wowut sa jotaay doo ma gis nee na sëñ Moustapha nee na ku ko wowut ci jotaayam du ko ma ànd ak moom nee na mu ànd ak sëñ Cheikh lam ma waxoon lam nga waxoon du aajo wax du aajo wax waaye ànd na ma moom noonu waaye ànd na ak ci liggéey ci liggéey mu woote xel koom mu woote xel koom ma ne maa ngi woo sëñ Moustapha daa dee ni maa ngi woo xel koom xel koom koo xam ne sama xarit koo xam ne sama xarit sama mbokk sama mbokk la ab taalibe la ab dëkkandoo maa ngi koy woo. waaye woowuma ko ci turu kenn. waaye woowuma ko ci turu kenn. ci turu Moustapha Akram laay wootee. ci turu Moustapha Abdoul Akram laay wootee. mu leer nañ. mu nañ. ma ne ca ba nëgëni. nee na ca nekk ba nëgëni. ku ma yàlla yóbbu woon. nee na ko yàlla yóbbu woon. yóbbu na ma ba alhamdulilahi rabbil alamin. dolli ko yàlla wàccoo na ak nun yonent bi wàccoo na nun sëñ Tuubaa wàccoo na nun suñuy waajur wàccoo na nun na alhamdulilahi rabbil alamin fii ko liggéey bii yóbbu nee na yàlla wàccoo na ñun yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wàccoo moom sëñ Tuba wàccoo na ak moom waajur yi itam na ak moom ndax fi xéewalam toll ci liggéey bi waral ko. kon du ko bàyyi. nee na kon du ñu bàyyi liggéey bi mukk. noo ngi ci. noo ngi ci. incha allah incha ngi ci. liñ ci jëlee. liñ ci jëlee. du neex a leeral. du neex a leeral. waaye ku gumbawul. waaye ku gumbawul. defe naa boo gumb woon taxit. na boo gumb woon taxit. da nga làmbatu daj. di nga làmbatu daj. ne am nañu cër ci sëñ Touba. ne sëñ mii de am na cër ci sëñ Touba. maa ngi leen di nuy yéen ñëpp ci turu sunu sëriñ di sama wasila di sëriñ Cheikh Anta mu sëriñ Modou Rokhaya di fab nuyoo boobu di ko jaarale ci loxol sëriñ Saliou moom Cheikh Abdoul Ahad mii nga xam ne mooy jëwriñu liggéey bi di fi jëmmi sëriñ Cheikh di ci teg sëriñ Moustapha mu sëriñ Abdoul mii nga xam ne way jur la ci sëriñ bi waaye. ñooy mooy moom muy moom sëriñ bi nee na nag ñu may ko tuuti mu nuyu ñii nga xam ne moo ñoom ñoo bokk ndey ak baay muy askanu Dormanko wi nga xam ne Baye Cheikh Amar mii toog tey jii mooy seen kilifa ndax daa fekkoon muy ànd bu yàgg bu tàmbalee woon ca maam Cheikh Anta ba agsi ci ñoom ñii sëriñ bi di yëkkati kàdduy seere rek yoo xam ne nee na da ciy sant bu baax sëriñ saaliwu ci jiital gii la sëriñ Seex jiital ci liggéey bii te mel na ne daa fekkoon sëriñ Touba Seex Saliou Mbacke jiital la ci ndax nag dana am garaat boo xam ne doomu aadama bu ko dee dégg day jàpp ne loolu ay pexe ko ko may fekk booba xaw a dee moo ko ko may sëriñ Saliou njurul ji li ko andi du caageenug ne muritoo njurul rek ko andi mm. ndax yow dong njëkkoo njurul ci ko sant Mbacke yow dongu njëkkoo fa ci doomi Cheikh Abdoul Ahad waaye jëf jo xamne ne na jur jéye ju bari bakkan yu bari faatu fa nga garantie sa bakkan ngir da taaliba Serigne Saliou ñong mo jur sa Saliou Saliou jurul ji kon lolu jitu na tey kon Serigne bi neena mi ngi lay sante bu baax di nangu cër bi nga xamne ne la Serigne Cheikh jox di yëkëti ay cadeau ci digënté ak Serigne Cheikh la ko jiitul mooy Serigne Saliou sëriñ Moustapha ñëw na ci jëru delluwaat muy liggéey bi nga xam ne moom la Serigne Saliou mujj a liggéey lu ci kaw suuf te sant leen ko ñoom ñii ñoo àndoon ak seen i kilifa Serigne Amidou newoon ca bopp ba keroog ba yàlla dogalee ñuy wëlbati lampi oto yi Serigne bi di wax ne duñ wàcc liggéey bi àggul te booba ndookaa desoon fa biñ jubee Serigne Saliou moo njëkk a waxal boppam ci ne am ngeen ndam da waaye fekkoon na ma yéene leen ko baat boobu Serigne Saliou woo ñaar ngeen ànd maa kon ànd boobu yàgg na seen diggante ak Serigne waaye Serigne Cheikh ñëw fedd li ci loo xam ne ak bokk am na ca naam waaye bokk yéene la ak bokk pas-pas muy ku neex a àndal koo xam ne dana la bàyyee mboolem sag bi la sëñ Touba jox dara jaam ji muy amit nangu na koo bokk ak yow loolu nag soo ko defee sam le liggéey boo ko woo mu wuy si la ci te xal koom sëriñ bi daa wax ne keroo biñ ko fi njëkkee woo am ngóob ku ñuy wax sëriñ naa Gay di jëwriñu daaray Daaru Salaam ñu yebal ñu fa ñu ñëw ca koor ga fekk daaray Daaru Salaam picc yi lekk ko amut dugub sëriñ bi daal ko ne may ma ma dem da Tuubaa te ñëw maak moom ñoo ànd ba mu dikkee mu yëkkati addiyaam jox sëriñ Saliou muy toll ci téeméeri junni mu ne ko dañ ma wax ne daaray Daaru Salaam amut dugub Salaam bi damaa turu Serigne Cheikh moom Serigne Saliou nee na kàddu yi muy bëgg a génne ci turam da koy waxe bi Serigne bi nee na Serigne Cheikh Sidil Mokhtar taalibe yi ak ndigal joxe ak taxawaayam ci liggéey bi ginnaaw loolu sëriñ bi ne mi ngi tàmbalee nuyoo bi ci kilifa yi ne mu bokkal jataa tan bokkoon liggéey bi nee na bu bëggee rek du yomb ne bari lool ne fii li fi teew ci sët Serigne Touba te ñëpp liggéey bi indi leen tax leen a jóg teew ci ay seex nga xam ne Serigne Touba moo leen seexaloon seeni waajur ñu bàyyi seen lépp ànd ci liggéey bi li fi teew ci ay wóllare ak i xarit ak taalibe yoo xam ni danoo cooberew rek ngir liggéeyal Serigne Touba. nee na bari na bari boo xam ni nee bu bëggee dugg ci tudd mooy di lim nee dana xaw a kiimaane ndax du mën a matal ñëpp waaye nee mu def yéene ji rek ñëpp xam ni mboolem seex yi mboolem sët Serigne Touba ñëpp a ngi ci biir gépp ku fi teew sëriñ bi nee ràññee nan la xam na sa pasteef xam nañ sa taxawaay xam nañ sa ne lépp ci yéen kenn ku ci ne fam dal wàccoon fa di fa sëriñ bi sëriñ Saliou nee na teg na fa tànkam xam na la fa mbooloom liggéey ak seen taxawaay ñoom sallallahu sallam nee na mu ngi sant sëriñ Touba Xaadim Rasul nee na di sant ki nga xamante ni mooy wasilaam di sëriñ Saliou Mbacke nee na moom mi nga xamante ni Serigne Touba dani Saliou mii sama dooma sëriñ Touba nee na moo wax loolu. kon nag ndokk. nee na kon nag ndokk. nee na ndokk ban jébbaloo ci sëriñ Saliou. nee na booba am na juróom-ñaari at. nee na booba la ko bàjjanam yóbbu mu jébbalu ci sëriñ Saliou. nee na diggante bi nag comme dañuy def conférence de presse ak presse bi nee na mu bëggoon nuyu sangam yu baax yi toog nee na muy Serigne Saliou Njurul nee na muy maam Cheikh Anta mii toog ak Serigne Moustapha Lakaram mii toog nee na Serigne Saliou Njurul. nee na dinañ toog at du déggante téléphone. nee na bu liggéey Serigne Touba ñëwee rek ci la ñuy déggante. nee na xanaa léeg-léeg ñu wootante namante ko rek. nee na mu ko doon sant cant goo xamante ni am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem. nee na xel koom nag li sëñ Moustapha Lakaram wax léegi nee na yombut a wax ci mbooloo ci ci ci biir xel koom waaye moom mii di sëñ Moustapha moom Lakaram ak sunu ak sunu maam Cheikh Anta mii toog nee na ñoom ñaar moom moo leen boole. nee na mu def leen nag ci biir xolam moom Cheikh Amar ndax nee na teraanga tuutiwul de rëyul nee na bi maamam nelawee fan yii ndax ñoom danoo nekk ci dëj ndax nee na moom sëñ Moustapha Lakram mii nee na di yónnee waajuram wu jigéen ay dugub ak ay teraanga sëñ Cheikh Anta mii nag comme li wax moom ab sëriñam la waaye dafa mel ni ñoom ñaar ñii ñoo bokk ndey ak baay nee na comme nag dañuy def conférence de presse bi nee na mbàkke mbàkke yëpp ak mbokkam yépp nee na mi ngi leen di nuyu di leen ñaanal bu ne yàlla nañ fi dajewaat ba pare na ñëpp yokk na ñëpp am yokkute. nee na fi muy jeexalee ci Serigne Saliou Njurul ndax nee na Serigne Saliou Njurul nee na li muy def defe na un dixième la def un dixième la nit ñi xam ci li muy jëf. nee na kon nag mi ngi leen di sant yéen ñëpp nee na keroog ni jaayam bërki sëriñ bi wax na ko ko sëñ Moussa Lakram ne ko yow yaay waajuram yaay waajuram wu jigéen yaay waajuram wu góor ndax nag ku la yëg nga yëg ko sëriñ Cheikh Saliou Mbacke sëriñam bi nee na Serigne Salim wa wasilaam ba neena na bëggoon na ko bëgg koo xam ni sëriñ Cheikh Anta mii nee na bi ko sëriñ bi njëkk a liggéeyloo dafa ñëw am lu mu jëflante woon ak moom nee na mu wax ko Serigne bi nee na mu ne ko Serigne bi mu ne ko moom sax nee ko dama soxla. ndax sama tool yi daf maa jaaxal nee na mu woo ko ci saasi nee na boobu avion yi ñëw dakaar bari na nee na mu jël avion bi daal fi wegg vingt heures na ñu jëm ci sëriñ ba nee na bi mu fa jógee tàggu ko dem Ndar ca suba ga nee na bi mu bi mu jullee fi ñu dentoon Serigne Touba nee na bi mu génnee ñu woo ko ne ko Maxtaar Jaxate woo na la nee na mu jokkoog sëriñ Cheikh nee na mu ne ko Serigne bi nee na bu ñuy ñëw Xelkom nee na ñu utal ko Fransidar Fransidar nee na bi ñu demee ba foofu neena moom mi témoin la ci nee na sëriñ bi nee na bëgg koo jox xaalis nee na mu woo ko moom mi ba mu ñëw nee na mu ne ko mbàkke nee na nii de laay jaaree daw ndax nee na ko ñeme ma sa xaalisu sëriñ bi mm-hmm. nee na lam ko ci liggéeyal nee na mu waat ko jox ko ab liggéey nee na mu dellu si yërëm ko ci tool yi xayma ko nee na ba mu jege lu mat milliard nee na mu delloo ko ko na sëriñ bi bañ koo jël nee na kon ma ne ko dama fi bàyyi tracteur yëpp ku la neex may ko nee na mu woowaat ko yónniwaat ko nee na mu ne ko ci tracteur yi moom ngay defaroo. machine machine la wax. nee dana ko machine sax la wax ci machine ngay defaroo. waaw ndax ba ma yoree sa maam. na dana ko ba ma yoree sa maam. ma tuddee. kiñ ko tuddee moom mi ba mu paree ci moom. nee na ba mu paree ci moom. da ko yóbbu ci maam Cheikh Anta. da ne ko na jàng. affaire mécanique ak ak lu jëm ci wàll weñ ak lépp. eh waaye gars yi ku may ci ci affaire oto yooyu nañ ma bàyyi. nee na gars yi nag moom mii fu mu toll na foo xam dootul xëcceeg oto kenn ku muy xëcceeg ci oto ak wàll weñ na ko bàyyi. Mm, na nga ma bàyyi ndax sëriñ bi dëxan na. ndax nee na ko bàyyi bi ko sëriñ bi dëxan du tey. barki dem Macky Sall wane na ko. nee na barki dem président de la république Macky Sall wane na ko. defe na ma toogal. nee na ko toogal. coow li dafa sagal coow li daa bëri waaye yow mii Cheikh Amar man président dama la bëgg a sagal may dellu ci sëñ Saliou Ndiourou nee na muy dellu ci sëriñ Saliou Ndiourou sëriñ Saliou Ndiourou aw ma payam sëriñ Saliou Mbacké nee amul payam aw ma payam nee Cheikh Amar ne yow sëriñ Saliou Ndiourou amul sak pay dignité bi mu am nee na fulla gi nga am ak dignité gi ah sunu borom mooy dogal nee na sunu borom mooy dogal toog. nee na ñoom ñetti ñiy toog. miinu ma ci ñu bëri nag. nee na miinutu ñu bëri nag. ndax Serigne Salim Mbacke rek laa xamoon. ndax nee na Serigne Salim Mbacke rek la xamoon. bu ma génnee. nee na xamoon na xamoon na Serigne Soyibu Mbacke. xamoon naa nee na xamoon na Serigne Abdoul Ahad. xamoon nee na xamoon na Serigne Abdoul Khadir. neena naa Serigne Mourtada. nee na xamoon na waayam ji Serigne Mourtada. daan bu daan tukki. moo ko daan yóbbu aéroport. am na bis mu bàyyi maxtu Serigne Touba sama biir am na boo xamante ni da koy yóbbu aéroport mu bàyyi koog maxtum Serigne Touba ci biir oto. nee na fàtte ko fa dem tukki. ñu jël ñu paasal dem Italie yóbbul na ñu paasal fii nit mu yóbbul ko ko ba Italie moom maxtum Serigne Touba ba mu fàtte woon ci oto Cheikh Amar. beneen bi nga xamante ni ci la ko sunu borom jëlee. nee na beneen bi nga xamante ni bi ko fi sunu borom jële boobu rek laa yëgul nee na rek la yëgul. toog tey. nee na kon nag ñett ñi toog tey. muy gërëm sëriñ Cheikh Saliou. nee na muy gërëm sëriñam bu baax ba sëriñ Cheikh Saliou. ndax mënoon na yàq. ndax nee na mënoon naa yàq. taalibe bari bëri woon na kër ga na. nee na taalibe yi bëri woon nañ kër ga kër ga rëboon lool. daaw ma toog 15 jours. nee na daawul toog fukki fan ak juróom. yoo xam ne sëñ bi wóoluwuma. nee na yoo xamante ni sëriñ Saliou Mbacke borom jurul wóoluwu ko. te fu ñu tolloo 15 woote. ndax nee na fu ñu toogaat fukki minutes ak juróom mu woote. laaj fu ma tool laaj na Cheikh Amar fu mu toll. kon nag tey ñett ñi ma fi fekk. na ñett tey. ma am sama sëriñ. nee na mu am sëriñam. muy sëñ Cheikh Saliou. muy sëriñ Cheikh mu sëriñ Saliou. sëñ Saliou way sama sëriñ. sëriñ Saliou Mbacke mooy sëriñam. waaye nag yoonu murid dafa am nu muy doxee. waaye nee yoonu murid bi dafa am nu muy doxee. ba mu demee. nee na ba mu demee. dama toog semaine di xool. nee na daa toog semaine di xool nelawul. am lu ma sëñ bi wan. nee na am lu ko Serigne Saliou Mbacke wan. ma xam ne kii mooy Serigne Saliou. nee na mu xam ni Serigne Cheikh mii mooy Serigne Saliou. ma ne ko aslamtu nafsi. nee na mu dem ba ci moom na ko aslamtu nafsi. kon nag bu defee ñett ñii. nee na kon nag bu defee ñett ñii toog. nga xamante ne ñett ñii. nee na nga xamante ne ñett ñii. ah xëy na Serigne Saliou day daan nañ daje. nee na xam na ni Serigne Saliou day daan nañ daje. waaye moom di sëñ Cheikh. waaye sax laa njëkk xam ci moom. ñii nee na ñett sax la xam njëkk xam ci ñoom. bi ma koy njëkk gis. nee bi mu koy njëkk a gis. boobu sëñ na. nee sëñ bi làkk na. te daan nañ jokkoo téléphone. nee na daan nañ jokkoo ci téléphone. ndax sëriñ bi. ndax nee na sëriñ bi. su ma duggaan. na bu daal ma sa dem këram. su ma paree damay ñibbi. nee na bu paree day daal di ñibbiwaat soow. nee bu lekk fenn. nee na mu ko bu lekk fenn. Hmm. dellu dellul fa nga fa nga juddoo. kenn rek moo fi daan nekk. nee na kenn dong moo fi daan nekk. ma jaar fa siyaar ko. nee na mu jaar fa siyaar ko muy sëñ Murtada. bés bi sëñ Abdoulaye li ma leen di wax nag. nee na li mu leen di wax nag. ragalu ma ko. ragalu ko woon. sama baay ma. nee na waajuram waajuram mu góor. déedéet sama sama maam. nee na maamam. Baye Cheikh Amar. Baye Cheikh Amar. bi sëñ Abdoulaye nelawee. bi sëñ Abdoul Ahad nelawee. dafa ne ma waaw Cheikh lu la yóbbu ci sëñ Saal. nee dana ko nee na dana ko moo Cheikh yow lu la yóbbu ci sëñ Saaliw. boobu jógee mi yor sama journal direct info. nee na nga xamante ne mooy jógee yor journalam bi nga xamante ne mooy direct info. xanaa mooy tëj xalifa Serigne Touba. nee na mu ne ko xanaa da xam ni kooku mooy tëj xalifa Serigne Touba. keroog laa ci gëj ne ma sëñ Mourtada wàcc na liggéey. nee na ba ne ko sëñ wàcc na liggéey. te boobu ñëpp. te nee na boobu ñun ñëpp. ci la woo jógee ne yaa ngi fàttaliku li sama maam waxoon. nee na ci la woo jógee ma àndaloon mu ne ko yaa ngi fàttaliku la sama maam waxoon. mu ne ma man na. mu ne mu ne ko man de jommi na. nee na nag nag daw. ragal. ragal nag. waaye jàppoon nañ ni. waaye jàppoon nañ te am na. te am na. nit dina dund cent ans. nit dina dund cent ans. boo ko jëlee ci atu jullit. nee na boo ko jëlee ci atum jullit. li mu dund ëpp na cent na li mu dund moom Serigne Saliou ëpp na téeméeri at. waaye boo ko jëlee ci atum nasaraan. waaye nee boo ko jëlee ci atum nasaraan. 94 95. 94 95. noonu nag. ndax ci atu tubaab yi la ñuy calculer. ndax nee na booba ci atu tubaab yi rek la ñuy calculer. waaw kon nag wax ji du bëri. nee na kon nag wax ji du bëri. ñii ma fi fekk daal. nee na ñii mu fekk muy ñett ñii toog. dal nañ sama xel lool. nee na xelam gën naa dal lool.